jee jóge alquraanu démb ga mooy alquraanu tey jii waaye alquraanu tey jii mooy bi ndaw yi di jàng ëllëg de moom la fi maam yi bàyyi woon bàyyi ci lañu dund waaye ba sët bay mujj a juddu ci alquraan gi ci la léppam di baaxe ci la léppam di rafete nitu yàlla yi képp ku yéeg ci alquraan la yéegee képp ku falu ci alquraan la faloo kenn ku nekk li mu am ci alquraan la ko ame alquran bàyyiwul dara alquran yéwén na ci lépp ci fépp ci nu mu doon alquran xanaa fii la sama xam-xam toll wala fii la sama dégg yam waaye lii alquran tudd ko alquran waxu ci loolu amul alquran wax na lépp bàyyiwul dara ku baax ki te mooy xaadimu rasul di Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla taas ci barkeem mi ngi wax ci téeréem bi nee na akrim bi zalika alkitaab fiihi hudaahu wa sawaab fiihi alxitaabu waljawaab min rabbina zil qidami moom xaadimu rasul moo mu ne teraangay teraangay foo koy wute nee na bi zalika alkitaab mi ngi ci téere googale yow kii dem penku yow kii dem sow yow ki jëm bët saalum yow ki jëm bët gànnaar akrim bi zalika alkitaab màgg màgg yi teraangay teraanga yi dayog dayo yi nee na lépp bi zalikal kitaab mi ngi ci téere boobu di alquran moom xaadimu rasul moo wax nee na fii nekk na ci alquran hudaahu yoon ngi jëm ci yàlla nga xam ne boo ko wàccul ci yàlla ngay yegg te ku yegg ci yàlla baax le fii baax le fële nee na benn yoon dong la mooy alquran gi waaye wa sawaab nee na yool goo xam ne dootul dakkati aljana ga nga xam ne dootul fay nee na boo ko bëggee am ci alquran ko koy ame nee na wa fiihi moom sëñ Tuubaa mooy wax ba léegi nee na fiil xitaabu wal jawaab li nga bëgg a laajte ak li lay tontu lépp mi ngi ci téere gi ana lu waral loola le mu ne min rabbina ngir mi ngi bawoo ci suñu bopp zil xidami moom mi nga xam ne moo njëkk-njëkk mooy njëlbeenam lépp lépp ci moom la gongeekoo te moom yàlla gongeekuwul ci dara yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi kon alquran ngi nii lépp lu doomu aadama di xalaat lépp lu doomu aadama fabriqué lu mu inventé lu mu feeñal lu mu doon ak fu ko jëlee ak ñan ñoo takkatoo def ko lépp yàlla ndëxaj na ko ci téeram bi yal na yàlla fay mag ñoo ñële ku ci téye du deñ di la ñoddi ba teg la ci loxoy seydina muhammad ngeen ànd jéggi siraat dugg aljana yàlla teral leen yàlla nañ ko yàlla defal képp ko bàyyi alquran bi gannaaw doo deñ alquran di la pamti pamti di la njatamal di la gësam di la jeex ba nga def ci gannaawu gannaaw yi yàlla nañ ci yàlla musal kon nitu yàlla yi musuñoo am lu dul téere gi musuñoo nampatal seen njoboot bu dul ci téere gi seen guddi seen bëccëg seen suba seen ngoon lépp ci téere bii rekk lañ ko goon moo tax boo demee ku baax ki Mawlana Cheikh Ibrahim di Baay Ñas yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi naan fal tajaalan na hifza kitaabakal karim karamati ila liqaayikal azim shawqi wa hubbi fiihi laa yushfi ila nuzuli wa irtihaali fii moom bàyyi ngi naan yow yàlla nanga def alquran muy sama karama karama boo ma munti jox ci karama yi na nga def alquran ngi sama wëttu ko sama njaboot wëttu ko sama askan ak sama xeet wëttu ko loolu di seen karaama te loolu bu mu dakk mukk bekka may daje yow yowmal xiyaamati moo tax yàlla may na ko loolale mu ne sama mbëggeel sama cofeel du dakk mukk dara mënu koo saafara bul nga may ma bu ma jeexalee kaamil ma yéeg ci kaamil bu ma jeexalee kaamil ma tàmbaliwaat kaamil nii rek bekka may daje yow yàlla demoon na ba semaine bu nekk dana ci wàccee ñaari kaamil demoon na ba semaine bu nekk dana ci wàccee ñett kaamil am na doomi aadama ñu ne vingt-quatre bu nekk mu mujjoon na moom baay def ci wàccee kaamil eh, kon eh, bu baay melee nii wallahi war na mel war na mel noonu le kon képp koo xam ne yaa ngi bugg a roy mag ñu baax ñooñale téyel ci téere ji boo ko téye da nga baax la ci zahir danga baax la ci baatin da nga defaru loo bugg a defar dana defaru da nga baax ba wey baax di baaxal waaye da nga wey baaxal bay xar baax yal na yàlla defal loola le kon bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kattanu borom bi subhaanahu wa taala bismillahi yàlla mooy njëlbeen bi nga xam ne amul tàmbale càccay yi bismillahi yàlla mooy aji des gi nga xam ne amul jeextal be dappet rahmaani teraangay biti yàlla la biir yàlla la ngëneel yàlla la rahimi xéewal yàlla la rahmaani defaru ci biti yàlla la rahimi defaru ci biir yàlla la nee nañu bisimilah rahmaani rahim fukki araf la ak juróom-ñeent muy ñaar fukk bu bu benn fukki araf la ak juróom-ñeent mooy tolloog waahidun waahidun góogale mooy cëru muhammad ci yàlla waahidun góogale kenn amu ci cër bu dul muhammad keneen dootu ci am cër bu dul muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la tasaaroo ci moom jëm ci mboolem waliw yi comme boo ahadiya yàlla rek moo ko moom boo ne wahdatu yonent bi rek moo ko moom waahidiyatu moom la yàlla jox sayidna muhammad ngi mu jox mboolem yonent yeeg waliw yi moo tax mboolem anbiya yi mboolem awliya yi mboolem rusul yi ñoom ñëpp ñu ngi tëbboo ci waahidiyatu te waahidiyatu boobale ñu ngi ko tëbboo ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahdatu waahidiyatu ahdiyatu incha allah taala danañ ko leeral bés bu ñu yeggee ci suratul ixlaas kon bismillahi rahmaani fukki araf la ak juróom-ñeent muy waahidun am na bu ko jiitu mooy wahdatu am na bu ko jiitu mooy ahadiyatu ahadiyatu cëru yàlla la mooy azalul awal kenn amu ca sottandiku kenn amu ca cër kenn amul ca sottandiku bu lu borom bi subhaanahu wa taala mooy bu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa awha ila abdi ma awha li mu jagoo kenn jagoowu ko li mu yor kenn yoru ko la mu doon kenn musu ko doon te kenn dootu ko doonati ku ko doon rek moo la baaxe euh, ci ci ci ci ci waahidiyatu gannaaw kon mi ngi noonale fukki araf juróom-ñeent kon bisimillahi rahmaani rahim boo demee tam boo kontee baat yi baat bu nekk nga génnee limam kon basmala mi ngi lay jox dana la jox junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar fóote moom mooy tolloog wa yanqalibu ila ahli masuran baati na mooy baat boobale moo ta boo ci saxee sa mbég du dagg mukk boo ci saxee sa xéewal du jeex mukk lu mbooloo di def di ko tële yow kenn boo ko songee rek da koy yóbbu wa yanqalibu ila ahli masuran fukki araf la ak juróom-ñeent bisimilah rahmaani fukki araf la ak juróom-ñeent li mu baatinam junni la ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bale junni la ak ñaar fukk ak juróom-ñaar kon bisimilah rahmaani rahim mi ngi noonale balaa muy wàcc buñ doon jàng dañu naan bismika allahumma yonent yëpp loolu lañ yore woon ba mu ñëwee ci jamono yonent yàlla huut beggaalam bi di départ moteur ba ko doon yóbbu di ko taxawloo ci la yàlla soppee ci bismika allahumma def bismillahi mujreha wa murseha moteur bi ko doon yóbbu di ko delloosi mooy bismillahi ba demee benn noona yàlla googu ñu doon tuddee namruus bun kanaan ba muy sànn yonent yàlla ibrahima ci safara sa qul adu llaha aw adu rahmaana kon ci la ci rahmaan bismillahi rahmaani yonent yàlla suleymaan alayhi ba muy bind bataaxal di ko yónnee buur bu jigéen boobu ñu doon tuddee balqiis di buuri saba ba muy bind keroog la mot innoo min suleymaana way noo bisimilah rahmaani rahim kon mbir maa ngi noonu le nee nañu miim bu njëba ndox yi aljana ci lay génnee ndox moo xam ne du sàppi du sàlli allahu haaba nee nañu meewu aljana ci lay génnee rahmaani miimam boobale nee nañu lemu aljana ci lay génnee rahimi miim bu mujj googale nee nañu sàngaray aljana ci lay génnee tajri min tahtil anhaaru ñeent dégg yaa ngoog kon alhamdu mboolem xaaji cant yi aji sax lillaahi ñeel borom bi rabbil aalamiina kii borom bi ndéef yi mboolem xaaji cant yi ñeent hamdal qadim lil qadim hamdal qadim lil hadis hamdal hadis lil qadim hamdal hadis lil hadis ba yàlla bindee lépp daal di yemb lépp daal di aw yoon lépp daal di doon sago moom yàlla ci boppam mu daal di yéemu ci jëfam yooyale aa ah, laysa laysa ka misli shay'in dara du yàlla yàlla rek mooy yàlla mooy hamdal xadim lil xadim doomi aadama bi bu defee lu baax yàlla bëgg ci moom ne kon ne amal abdu innahu awaab sama jaam ju baax a ngi nii jaam joo xam ne fu ma ko joxoñ fa jaar yàlla defal la ay teraanga nga ne alhamdulilahi lépp yàlla rek la yéen neen soomaa soom ngeen defalante ay teraanga kenn ku nekk sant moromam yéen ay sabab dong ngeen ay mazahir ngeen waaye cosaan ba kileen leen dooleel kenn dong la mooy borom bi subhaanahu wa taala moo tax ñu naan alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxle lillaay ñeel borom bi subhaanahu wa taala rabbil alamina kii borom bi kon allahu uluhiya la rabbi rububiya la moo tax yàlla nanguwul ne alhamdulilahi rabbi ilaahil alamin aa ah, loolu du diis la uluhiya mooy maandoom gi moom yàlla yàlla bu la jëflantee ak maandoom sa benn mbaax dootul feeñati bët bi ngay xoolee téere bi ku la ko defal yàlla la làmmiñ bi ngay jàngee téere bi ku la ko defal yàlla la nopp bi ngay dégloo ana ki ko defal yàlla la asamaan si taw nga def sa jiw bay di ci génne asaka foog ne sa ngóora la ana kan moo tawal asamaan si ana moo saxal gàncax bi ana moo la may wér nga tal am dal bay bay am loo joxe kan la yàlla la kon alhamdulillahi yàlla bul jëflanteeg doomi aadama ci allahu dong rububiyaam uluhiyaam maandoom daal di dugg amul kenn koo xam ne mën a seqi ah, ndax bu boobaa dafay daal di tar dafay diis moo tax mu boole cantam ak uluhiyaam mu boole mu boole mbindam ak rububiyaam ngir doomi aadama mun koo dékku moo tax mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxle lillaa ñeel yàlla rabbil alamina ki nga xam ne mooy ki sàkk mbindee fii seetal mbokk yi ni yàlla bindee doom ni yàlla bindee yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal jël sànqal boobale dugal ko ci biir pepp jël pepp ba dugal ko ci biir cox jël cox ba dugal ko ci biir xetax jël xetax ba dugal ko ci biir ŋóot jël ŋóot ba dugal ko ci cëgg wala dugal ko ci gub gub googale mu bootal ko aw gattax lii yow doomi aadama boo bojjee nga dëbb buñ ne nanga ko delloowaat sa dee mooy taxawaay doo ko mun mukk kon rabbil alamina yàlla mooy ki defar mbindee fi kenn du defar ni moom yàlla mooy ki defar mooy ki sàkk mooy ki amal aalam yi bari nañ bari goo xam ne kenn mun laa wax aalam yi ni mu toll aalam yëpp xam nañu suuf aalam yëpp xam nañu doomi aadama waaye doomi aadama xamul aalam yëpp lu tax ñu xam suuf nit a tax lu tax ñu xam nit Seydina Muhammad moo tax sallallahu alayhi wa sallam amul jinne amul kondorong amul kiyaafi amul malayka kurubiyuun dafaafata safarata taastati maastati mboolem xeeti lu yàlla bind lu nit mu xam ak lu mu xamul lépp xam na suuf ngir doomi aadama waaye lu tax mu xam doomi aadama ngir ki feeñ ci ñoom mooy xayrul bariyati di sey naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon rabbil alamina am na alam yoo xam ne ñoom ci ndox la ñuy dëkk bu ñu génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci ngelaw la ñu nekk buñ ci génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci safara la ñu nekk buñ ci génn rek dee moo tax bu ñuy naan jant bi amuñu fa dëkk ngir tooke bi muy sànni mu ngi takk tàkk guddeeg cëg ay nangami junniy junniy barigo tooke mu ngi koy taal ba ko yàlla sàkke ba léegi ay mbindeef mi ngi fa de ren ji ñu toll wala ci weer bi ñu génn jant bi buusu na buusu goo xam ne war na ma téeméeri at defu ko moo tax nañ dem ak sago yàlla lu ma téeméeri at ci ren jant bi buusu na buusu goo xam ne ci weer bi ñu bawoo dem na ci nangami million wala nangami junni junni ay kilomètres dox na ko jëm ci suuf si yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi kon nañ delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala eh, ni mu toll kenn xam ko rabbal alamin arrahmaani yàlla mooy zahir rahim yàlla mooy baatin nee nañ yërmaande yàlla yi bu doon téeméer la benn dong la wàccee ci àddina bi moom la ñuy yërëmantee ñun neen ci la taw bi di wàccee ci la gàncax gi di saxe ci la géej gi di bambulaan ci la jigéen di ëmbee daal matu wasin waaye du tee mu fàtte méttitu matu googale ngir baatu rahmaani googale dellu ëmbaat àddina gi mën a dox rahimi nee nañ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la yàlla mi ngi ko denc ngir yomal qiyaamati yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi maliki moom mooy buur maliki yawmi diine mooy buuru kere ba ñuy teqale diine yi kenn ku nekk lan nga toppoon ba mu tere la jaamu yàlla bu yowmal qiyaamatee yaag loolu ngeen ànd taxaw ci kanamu yàlla nga seet ndax loolu dana la jëriñ yowmal qiyaamati kenn ku nekk la la tere jaamu yàlla da nga sàppe ci ginnaaw loolu seet ndax dina la jëriñ ñi làmbu tere woon jaamu yàlla nga sàpp ci ginnaaw mbër yi seet ndax dinañ la jéggaloo siraat ñi sport tere woon jaamu yàlla ay judo ay ay catch ay kung fu lépp loo tere woon jaamu yàlla ay football ak ay basket ay handball ay volleyball ay javelot ay disque ay poids lépp lu tere woon jaamu yàlla waxtu julli jot nga bañ julli ngir seetaan loola le bu ëllëgee nga taxaw ci gannaaw loola le seen ndax dina la mën a musal malik yow mi diini am na jëmm doomi aadama yoo xam ne yàqule nañu baax leetuñu du dara dañoo toppoon ci seen jamono loo xam ne tekkiwul jëriñul am na ñoo xam ne cinéma rek moo doon seen mbir film bu mus génn danañ ko seetaan bàyyi seen leçon duñ ko jàng ngir bu ëllëgee ñu adme acteur boo leen mus a laaj ci acteur addina yi wala actrice xam nañ ko lii yàqal leen seen liggéey yàqal leen seen jamono lañu waroon a dajale jox seen njaboot ñu dajale ko muy paas ñu dem cinéma am na ñoo xam ne fa lañ jaar yàqule génération boobu yàqu am na ñoo xam ne musiciens yi lañ toppoon ay Ray Charles ay Johnny Hallyday ay ñooñu lañ toppoon fii ak loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm ci yàlla fii loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm seen avenir bu ëllëgee yàlla bàyyi leen ñu sàpp ci ginnaaw loola la seet ndax loolu dina leen mën a jéggaloo siraat maliki mooy buur mooy kenn ki nga xam ne moom dong mooy ki fës moo yore baat moo yore mën mun moo yore sañ-sañ kañ yow mu diini kara ba ñuy teqale ba su diin kara ba ñuy teqale diina yi kenn ku nekk la la nga téye woon mooy sa awuwaay ñu seet ndax loolu dina la mën a jëriñ pencab yàlla googale malik yow yawmi diin ñëpp danañu ñëw yowmal qiyaamati waaye ñëpp duñ tee yowmu diin de am na ñoo xam ne bu ñu génne yowmul qiyaamat yowmal qiyaama dañuy jaar ndey joore dugg aljana ñoom xamuñ ne siraat am na yal nañ yàlla boole ci ñooñu ñooy ashaabul yamin wala ashaabul mana ñooñu dañuy génn bàmmeel rek jaaree ndeyjoor joor dugg aljana ñoom xamuñ na coono tax coono am na benn ngoog am na ñoo xam ne dañuy génn biir bàmmeel rek jaaree càmmoñ dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ñooñu tamit du ñu yëg dara ci yow mu diini ni ñu génnee bàmmeel rek mooy asaabul mas masama wala asaabu shimal ñoom bu ñu génnee bàmmeel rek càmmoñ la ñuy jaaree dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ana ñal ñooy ñëw yow mu diin yow mu diin mooy ñi nga xam ne seen lu baax ak seen lu bon moo tolloo la am ci lu baax loolu la ñam ci lu bon ñoom dañ ñëw mu diin yàlla seet seeni jëf bu leen di yërëm mu yërëm leen bu leen di mbugal mu leen kon benn kuréel a ngoog ñaareeli kuréel gi mooy lan mooy sëriñ si ñu képp ku ñu toppoon da nga ñëw yow mu diin de yàlla ne na yaa ngi nii ñu ngi nii doomi aadama nga ni ñoom lu taxoon wonoo leen yàlla nga won leen sa bopp ñuy bey di la andil di dajale ay azaka di la andil di dajale ay addiye di la andil boo waxee boo ne tisto balaa nga wax alhamdulilah ñu ne la yarhamkallah ñu jël seen salaire di la jox lu teewoon nga xamal leen yàlla xamal leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ si tam dinañ yow yow mu diin de mooy yonent yi al ulama warasatul anbiya yonent yëpp dana ñëw yow mu diin yow laa yónni woon ana loo waxoon nit ñi diw weddi na yàlla te moom ak yow dendoon lu teewoon nga woo ko ci diina yàlla gi ana ñan ñooy ñëwaat yow mu diin mooy ñi nga xam ne dañoo judd te judduñ ci biir sëy dégg ngeen wolof bi mooy doomi aadama yi nga xam ne dañoo judd fekk seeni papa takkuñu seen yaay ñoom danañu dikk yow mu diin ànd ak seen ndeeg seen bàyyi yooyale yàlla man de dama feeñ seen diggante du maay ki soloon sama dàll di wuti jigéen waaye du man maay jigéen bu ñu soloon dàll di ko wuti man de yàlla sag nattu rek ci laa feeñ yàlla attel sama digganteeg ñaari way jur yi nga xam ne ñoo ma teg ci lim bi yal na yàlla musal yaa rabbi iyaaka yow yàlla képp naabudu la ñuy jaamu waaw yow yàlla dong yaa jagoo jaamu yow yàlla dong yaa yelloo jaamu yow yàlla dong sag jaamu njëriñ ci la nekk sag ñàkk jaamu ci la lor nekk iyaaka yow kott kott naabudu la ñuy jaamu kon lu doomi aadama jaamu bu dul yàlla pert na yàqule na alkole na mu joom dana ñaaw rek doomi aadama taxaw sa gannaaw bunt ne koŋ-koŋ nga ne kooku kan la te ay sëriñ bi ki ci sa bunt bi yoo xamagoo kan la kon li ngay woote anamu sa taaliba di dee faatu na kañ la faatu a ah, kañ la def loola la yow war ngaa réele loola la ngay woote makaama yooyu la kon kii ñu war a jaamu kenn dong la allahu yàlla abudiya dafa am ubudiya am ubudiya nga jaamu yàlla ca nam ko bëggee mu jàmmal la nga bañ a jaamu yàlla ca nam bëggee mu teg la abudiya pal force li mu namm ci yow danga ko def te doo am yool da nga toog nga saf duus nga dugg da nga toog nga sax wanok dugg te bu doon lu la neex la doo ko dugg kon bañ nga koo jaamu ci ubudiya da nga ko jaamu ci abudiya mu teg la feebar ñëpp fanaana nelaw ba bët set yow kenn ngay bër nga doo mën a nelaw iyaaka na abudu boobale mooy allahu muhammadu iyaaka na abudu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu juróom benn fukk ak juróom la muhammadu juróom ñeent fukk ak ñaar la juróom benn fukk ak juróom benn boo ko boolee ak juróom ñeent fukk ak ñaar mu daal la jox téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mooy tolloog allahu muhammadu mooy iyaaka naabudu kon boo jaamoo yàlla te jaaroo ci muhammad doo yegg mukk képp ku jëm ci yàlla te jaaroo ci seydina muhammad doo yegg mukk mooy baabullaahi wa xaasinu fadli loolu la bàyyi wax ca téeram ba boo jaaroo ci muhammad doo musa yegg ci yàlla yonent ci muhammad lañ jaar soog a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala mu middul an anbiyaa yi wa rusuli mooy kii tëbb yonant yi anbiyaa yi waaye mooy kii tëbb rusuli moom allahu muhammadu daana wàcc ci téere yi jiitu woon aha tawraata injil zabuur ay téere ibrahim waaye ni mu doon dikkee daawul dikkee allahu muhammadu kon ñëpp yem ci xam ko waaye dafa doon doon am laxalama hudu am laxalama hudu juróom-ñetti araf la da fekk alif benn alif moo ca nekk ak ñaari laam ak benn xaa mooy allahu ba da ca fekk ñaari miim ak benn xaa ak benn daal muy muhammadu kon dana doon wàcc ci téere yi daawuñu xam firiga naka bu ñuy tàmbali sooratu yi ñu naan alif laam miim wala alif laam miim saat wala alif laam miim raa wala kaaha yaayin saat wala taaha wala yaasiin wala haamim añ sin mag ñu baax ñi dañ doon naan allah alam bi muraadihi waaye lépp ay junj la junj yoo xam ne ay baatina alquran la moo tax baatin googale di am la xalama hudu bi doon wàcc ci yeneen téere yi ñu koy tuddee juróom-ñetti araf yi mooy allahu muhammadu boo ko xoolee iyaaka ñeent araf la allahu ñeent araf la iyaaka yow yàlla na abudu muhammad mooy abdullahi ñeent araf la kon ñu ngi koy dégg moo tax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp fu ko yàlla di liggéeyloo ngir yéege ko du ko ne muhammad abdu la koy wax lamma qaama abdullahi yéen nañ koy fàttaleeku ci suratul jinni lamma qaama abdullahi waxul ne lamma qaama muhammad de wala lamma qaama mustafa dafa ne lamma qaama abdullahi ba mu demee ba yéeg guddi rañaan nga ba yàlla jox ko lu mu sa jox kenn te mu bañ koo tudd dafa na fa awha ila abdihi ma awha new ne fa awha ila muhammadihi aw ila mustafa aw ila muntaqa aw ila muxtaar déedéet fa awha ila abdihi ma awha abdullahi ba koy ràññaane subhaanallazi asra bi abdihi fu muhammad sol ay mbubb te mbubb tenit travail la yàlla di ko yéege ay martaba du jaar ci baati muhammadu wala mustafa wala muntaqa wala murtada turam yi du ci jaar benn abdullahi la ciy jaar moo tax moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrul asmaa'i maa ubbida aw hummida tur yi gën ci tur yi mooy tur yi ànd ak abdu walla tur yi ànd ak hamd te mooy cant abdullahi abdul salaam abdul muhaymin abdul jabbar abdul hayy abdul rahim wala tur yi ànd ak hamdu muhammad mahmud hamad hamuda hamdin hamdan xayrul asmaa'i maa ubbi ubbida aw hummida kon iyaaka yow kott naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka te yow dong yow yàlla nastaynu la ñuy sàkku ndimbal ci moom ci koo sàkku ndimbal bu dul yàlla ah ndimbal ga du wey tey mu defal la ëllëg mu defal la ëllëgaat nga ñëwaat sàppi nga ko dootul defaat ki nga xam ne boo ko ñaanee mu bëgg defal la boo ko ñaanul mu mer kenn dong la mooy yàlla innahu yaxdibu an tarakta su'alahu fa sa'al bi ma aratta yàlla mooy buur bi nga xam ne loo ko ñaan mu jox la boo ko bañee ñaan moom yàlla mu daal la mere inna allazi ata bi baabillaahi falan yariba yaa axi wallaahi képp ku dikkee buntu yàlla yi du sooy mukk yàlla dina ko defal ay xéewal waaye boo dikkee buntu keneen ku dul yàlla yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaar gi bés dana jot mu tas yaakaar gu dul tas rek mooy yaakaar bu ñu yàlla moo tax ñuy naan ah di day moom ak a yàgg wéeru ci yàlla waaye bi yoon day daanu na déedéet dafa cof yàlla kenn du wéeru ci yàlla ngay xaweeku di daanu ku ñu dégg ñu ne dafa wéeru woon ci yàlla daanu wéeruwul ci yàlla dafa cofoon yàlla ku cof yàlla na boo xalangoo dootoo jogaat wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu boo wéeroo ci yàlla mu jël sa lépp ba mu jeex tàkk kon ihdina yow yàlla yàlla nag ñu gindi ihdina yow yàlla yàlla nag ñu tette ihdinaa yow yàlla yàlla na ñu jëgat jëme asiraata ci yoon almustaqima yoon gu ne coow yoon goo xam ne lunkuwul bankuwul ooñuwul ihdina siraata nang ñu gindi nang ñu jubal nang ñu tette nang ñu ommat siraata jëm ci yoon almustaqima yoon gu jub kocc mbokk yi jub de yombul de seeta saar bi li ci yàlla wax yépp mi ngi bàkk boppam mi ngi kañ boppam mi ngi tagg boppam benn ndigal dong la ci joxe mooy ihdina siraatal mustaqim moo tax ku baax di Cheikh Mawlana Cheikh Abdul Qadir Jilani xaddasallahu siraw yàlla na yàlla taas ci barkeem moom Cheikh Abdul Qadir Jilani nee na al istiqamatu afdalu min alfi karama benn njub moo gën junni karama diw mi ngi naaw ci kaw diw mi ngi tëmb ci ndox mi ah diw ku mu joxoñ nga doon golo njub moo dàq moo gën lii lépp jub ci siraatul mustaqim ba yàlla fekk la ci siraatul mustaqim lii mooy li jafeñ am na koo xam ne bu nekke ci biir doomi aadama yi misaalam waliyu kaamil la waaye bu beroo firaw naa ko tane njubadi rek ci lay def dem nañ nag ci jamono lii ñuy naan tawam moo wàcce taw njubadi wàccul nit ñee di rek waaye njubab yàlla gi mooy alquran gi njubab yàlla gi mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ihdina yooyu yàlla yàlla nag ñu gindi yàlla nag yal ñu yal nag ñu amat asiraata jëm ci yoon almustaqima yoon goo xam ne yoon gu jub kocc la yal nañ ko yàlla defal yaa rabbi siraata te mooy yoonu na ña nga xam ne an amta wàcce nga xéewal an amta xéewtal nga an amta baaxe nga an amta teral nga an amta suqali nga wàcce nga ay teraanga wàcce nga ay xéewal alim ci ñoom te mooy sahaaba yi ak taabiina yi ak taabii taabiina yi waliyu yàlla yi sëriñ su baax si ñi leen di roy ñi leen di topp ñoom om seydna aboubacar siddiq seydna omar ibnul xataab radiallahu anhuma seydna ousmaan radiallahu anhu seydna ali ibn abi taalib karamallahu wajhahu mbokk yi seetal waxinu yàlla ñi nga xam ne moom la xiiwatal ci ñoom seetal xéewal yi na aboubacar siddiq ci tooke ci la faatoo tooke ndax jaan daf ko màttoon fan la ko jaan gi màttee ci xunt bu ñu tuddee raaru sawra wala raar ak sawr ba ñuy gàddaay moo njëkk a dugg seydina muhammad sallallahu alayhi ne ko muhammad bàyyil ma dugg bu luy gaañee bu ci nekkee na yem ci man man bu ma dee benn jëmm ju dee laa waaye yow boo faatoo tey àddina gu tukki nga de àddina gu tukki la seetal ku jeex takk ci doomi aadama ni muy mel moo tax kuy xas sëydinaa abubakar siddiq sa bopp ngay xas jëmm joojale yàlla bindatul jaam buy melaat ni moom ndax moom moo njëkk a takk maqaama siddiqiya yonte yonte yàlla muhammad naan ko abubakar siddiq maqaama siddiqiya doomi aadama takk ko da nga dem ba doon xutbu da nga dem ba doon rawsu da nga dem ba doon jaamiul fard da dem ba nekk fardul jaami te siddiqiya doo ko mën a takk lii yëpp ay maqaama la ci biir wali wi moo tax man damay jaaxle yenn jamono kayit boo gis ñu bind ci rek nga gis ñu bind ci diw xutbu loolu du foyekaay diw général la général léegi la doon foyekaay waaye général première classe deuxième classe caporal caporal chef ba keroog nga yegg général ay général de division ay général de brigade ba ngay yegg ay maréchal ku jóg rek ne diw maréchal la nañu tuub dellu ci yàlla wax yu ëpp yooyu ñuy wax foog ne lu xeebu la ñett fa ne bàmmeel mbokk yi diis na de bàmmeel dana néewi ba fett te ku ko néewi moo yow ki tëdd ci biir bu bu bët wànnentee doo nelaw sa boñ buy métti doo nelaw sa nopp buy métti doo nelaw naka nag sa cër yëpp daal di néewéndoo benn yoon nga tëdd ci biir làmmeñ nga tëdd ci biir bàmmeel sa làmmeñ mi ngi néewi sa bët a ngi néewi sa nopp a ngi néewi butit yi ñu ngi néewi mbaq yi ñu ngi néewi sa xol a ngi néewi sa res a ngi néewi sa xëtër yaa ngi néewi ñetti fa yi bàmmeel dënga nga néew yi ci biir bàmmeel ba sa bàmmeel bi dana fett sa kaw keroog kenn du la fekk sa métit góogale yow dong ak sa jëmm jala moo tax bu ñu nekkee ci biir mbooloo xataraayu bu ñu nekk ci bii mbooloo di wax yu jéggi dayoo yow ki ngay wax moom xam ne yeggul foofale yow ki koy wax xam nga ne yeggul foofale yaa ngi def loo xam ne kabura maqtan indallaahi yal na yàlla dimbale yaa rabbi xoolal naa ab seydna abubakar siddiq moo la képp ku koy xas sa bopp nga xas rek moo njëkk a dugg pax bu mu gis mu xotti malaanam saan bi amatul lu mu saañ mu jël xeer yi ci biir saañ mu jóge mu gis benn pax amul lu mu ko sakkee mu dugal ci tëstanam du xam ngeen tëstan tëstan wa dee seen tontolier mooy maa ngi jéggalu dafa am ñu fi nekk bambara la ñu gën a kii wa dee seen tontolier mooy tëstan mu dugal tëstanam ci pax googale jaan bi nekk ci biir fatt mënta génn ci la màttee Seydina Abubakar Siddiq tooke boobu nag moo ko gunge tooke boobu moo ko gunge incha allah bu ñu yeggee ci aaya ga incha danañ ko firi ngeen xam nan la mujjee ak tookeem boobale te kookale mooy an amta alayhim seydina omar radiallahu anhu jàkka amuloon mihrab jàkka minbar la amoon rek waaye amuloon mihrab eliman dafay jiitu rek sàpp yi topp ko fi omar ne allahu akbar ci njël rek di jiite abu lu ulu a ci la ko ci la ko jame paaka ci jam-jamu paaka boobu ci la faatoo an amta alayhim seydina usman bun affan di ki ci ñaari doomu jigéen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir këram lañ ko fekk mu ngi tiim alquran bi di jàng ci lañ ko boomee deret ba daal di toq ci kaw kaamil ba ku ñu naan Abdullahi bun Saba yemu ca mu tëb taxaw ci kaw ay faaram ba damm ñett faaram te ñi ñooy an amta alayhim Seydina Ali ibnu Abi Taalib ba mu génnee njël di julli ji Abdurahman bun Maljam ci la dajeg moom daal di ko bocc samaaram googale jam-jam googale ci la demee àllaaxira an amta alayhim alxasan dañ ko tooke mu lekk rek ca ndabu biiri génn ci la demee àllaaxira te mooy sët bu njëkk ci seydina muhammad an amta alayhim alxas alhuseyn ca karbala ca lañu care ca lañ ko reyee ca lañ ko boomee ku ñu dee chamar ibnu zi jawzan ci la daggee bopp bi ñu di ko sànnante di ko def comme bal bopp bi ñu ngi ko yaram bi ñu ngi ko suul ca karbala ci iraq waaye bopp bi mu ngi dox rek boo demee ci baabul faradis ci jaami ustaxir ci dëkk bu ñu dee Damas di capitale réewu Syrie am na fu fa nekk nee nañ bopp bi fa la nekk ñu ngi koy ziyaare boo ñëwee ci Asqalaan fii ci réewu Palestine am na fu ñuy ziyaare nee nañ bopp bi fa la nekk boo ñëwee fii ci Qahira di Caire capitale bu Égypte ba tey am na fu fa nekk ñu koy ziyaare nee nañ bopp bi fa la nekk te kii mooy ñaareelu setu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ñooy an amta alayhim yàlla mbiram musta sedd musta yomb ñafe rek nga bokk ci gaay yàlla yi muñ bañ a jàbbatu bañ a ŋuurumtu lu la yàlla teg xam ne tegoon na ko ñu la gën waa lu la laal xamal ne laal na ñu la gën ñu la jiitu woon siraatal lazina yoonu gaa ñi nga xam ne an am te wàcce nga xéewal alim ca ñoom yàlla xayril maxduubi bul ñu boole bul ñu dendale bul ñu dajale ña nga xam ne sag mer wàcce na alim ca ñoom te mooy yahudi seetal yahud ni mu yéesee yahud dem na ci doye dem ba na sàkk ku mu bokkal ndeeg baay lii mi ngi ci ñoom koo bokkal ndeeg baay boo demee ba bokk ak kooku lal xam ne mbon fala tilim fala tàmbale tilim fala yem mboolem loo gis tey mooy yàq addina gi yahuda ko def seen film yi bon yi ñuy teg ci télévision yi góor futteeku naka ni ko ndeyam juree jigéen futteeku naka naka naka ndeyam ni ko juree ñuy sëy ay satellite di ko sànni doomu aadama di ko seetaan lii ñoom ñoo ko njëkk a def banque yi nekk ci àddina bi yëpp di def riba lépp dërëm fayeeku dërëm ak genn wàll lépp lii seen jëf la ñoo ko andi tey jii te riba dafay toroxal jamono gis ngeen crise mondiale bii ñu nekk tey Amérique usine yaa ngi tëj rek Europe tamit noonu ribaa bi dong la fii ak riba bi bàyyiwuñ ko dem ci solution bu lislaam duñu yegg fa ñu jëm mukk wala daal na du caagan waay sànku yi fii nag maa ngi leen di yee ci dara mooy téere yiñ yore nii yépp ñaari alayhim moo ci ñëw xayril maxdubi alayhim an amta alayhim xayril maxdubi alayhim da ngeen gis ci yeneen téere wér na de wala daalina alayhim da ngeen ko gis waaye wér na de bu leen ko weddi mukk yonent bi amoon na téeméeri junni sahaaba ñaar fukki junni sahaaba ñeent junni sahaaba ba yonent bi wàccee liggéey ñii ñëpp dañoo tasaaroo ci àddina gi njàng googu njàng bu wér la de amta alayhim xayri magdubi alayhim wala daalina alayhim na ko bàyyi xel dégg ngeen kàddu gi da gis ci alquran fata bayyanu da nga gis am ñu bind fata sabbatu boo dindee maska yak araf benn la alquran maska bidaa la ci alquran tomb bidaa la ci alquran alquran amuloon tomb alquran amuloon am maska ñoom arab lañu woon luñ ne jàkk rek daañ ko mën a jàng moo tax fata sabbatu fata bayyanu boo tombee mun nga tomb fata bayyanu boo tombee mun nga tomb fata bayyanu lépp dafay daal di feeñ kon dégg nañ kàddu gi waxoon naa leen fi ci jamono danga nga tukki nga gis ku jàpp waaye du raxas tànkam dafay masa tànkam naka boppam nga gis ñun ñi dañuy raxas suñu tànk bu ñu ñële gisee ne dañoo juum ñun bu leen gisee ne dañoo juum ñoom dëgg am la de bëri na ci réew penk yi boo demee lu mel ni ay xuraasaan réew yooyu bari na foofale lu mel ni ay Iran ay Afghanistan réew yooyu am na foofale waaye dëgg la de da ko jàng ca naxwu ca alquran la ak arjuli boo defee arjula da ngay raxas faxsilu wujuhakum kon wa la boo masee ci suuf wa arjuli comme famsahu bi ruusikum ci arafu jar ba nga ko delloo kon dégg nañ kaa dëgg yal yàlla déggloo ñu boppam yaa bi kon fatiha ngoog sabu u baat bu ci ñëw rek ñëwaat na beneen rahmaani rahim ci bismillaahi ak rahmaani rahim ci gannaaw rabbil alamina hmm? rabbi maliki iyaaka naabudu iyaaka nastayinu siraatal mustaqim siraatal lazina kon gis nañ ko sabu u masaani kon ñu jóge foofu la ñëw ci saar bi ñu tuddee soratu baqara baqara li muy tekki mooy nag li tax ñu tuddee saar bi sorotu baqara def adresse am muy loolu tawfiq yi la danañ ko firi ci kanam tuuti tey incha allah waaye saar bi ñu ko tuddee sorotu baqara kon bismillahi rahmaani rahim alif laam miim alif bu sampee kenn du sempi laam bu sempee kenn dootul samp miim mooy ki ndar kepp am na ñuy jànge alam ndax alif miim la kon alam taalam anna zalika al kitaab laa rayba fii hudan lil muttaqin am na ñu ñuy jànge noona le ah? alam taalam bi anna allaha yara ah alam tara kayfa al rabbuka alam ah alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam nasrah alam najal moo tax am na ñuy jàngee alam zalikal kitaab laa rayba fii bu leen weddi lu dëggu alam te alam anna zalikal kitaab laa rayba fii kon ñoom dañoo ne am na lu fa dog ndax alquran dana waxee noona la boo demee ci biir alquran ne na was alil qaryata laajal dëkk ba dëkk dana wax dëkk du wax nitu dëkk bi wax li fa nekkoon mooy wasal ahlal qariyati kon majaas la wasalil qariyata li fa nekkoon mooy wasal ahlal qariyati kon buñ ne alam zalikal kitaab laa rayba fii hudan kon lu ñu mën a dégg la kon dégg nañ kàddu gi waaye ba alif laam miim boo alif ñetti euh, téeméer la ak fukk ak benn alif téeméer la ak fukk ak benn te mooy tolloog laa ilaha illa laa ilaha illa huwa téeméer la ak fukk ak benn mooy tolloog xutbu xutbu mooy kilifay waliw waaye moom mooy tolloog kaafi yàlla dooy na lu nekk kon alquran ñu ngi dugg si ci biir am na ñu ne téeméeru saar la ak fukki saar ak ñeent saar kon mu tolloog jaamiu dégg nañ ko jaami u mooy dajale na lépp bàyyiwul dara ndax jiim ñett la alif bi ko xacc benn la muy ñeent kon miim ba ñeent fukk la ayin bi juróom-ñaar fukk la booleen boole muy téeméer ak fukk ak benn mooy jaamiu kon alquran dajal na lépp moo ñu ne alquran fukk téeméeri saar la fukk ak ñeent am nañu ne déedéet téeméer saar la ak fukk ak ñett ndax dañoo boole sóoratu lanfaal ak sooratu tawba lan faal jeexu waayam dafa niroog tàmbali waayu sooratu tawba te bisimilah rahmaani rahiim nekkul seen diggante kon bu ñu boolee ñaari saar yooyu ñuy benn saar kon muy téeméeri saar ak fukk ak ñett dootul doonati téeméeri saar ak fukk ak ñeent waa téeméer ak fukk ak ñett lan lay doon mooy baaqi baaqi ci turi yàlla yi alquran mooy des ba faw lépp dana ràpp jeex ba mu des alquran kon alquran mooy baaqi kon jóge na ci jaamiu nekk na ci baaqi am ñu ne déedéet loolu am na waaye alquran téeméer saal ak fukk ak benn dañoo boole qul a'uuzu bil falaqi ak qul a'uuzu naasi def ko muy benn ngir benn mbir moo leen wàccee ci benn jamono la ñu wàcc benn minit benn seconde ci la ñu wàcc ñu boole it li ilaafi qurayshin alam tara kayfa ndax ci baatu arab foo andi jaar ak majruur foog mu am fu mu aju boo ne bismillaahi mi ngi aju ci kaa inun aw istaqara boo ne lillaahi mulku samawaati kon li fa nekkoon mooy kaa inun lillaahi boo ne lahul hamdu kon li fi nekkoon mooy istaqara lahul hamdu kon boo ne li ilaafi comme laam ba jaar la ah li ci des majruur la foog mu am fu mu aju fan la aju ka asfin maakuulin yàlla alag na abrahata lan moo tax mu alag leen li ilaafi Quraysh ngir waa Quraysh am jàmm kon mu doon téeméeri saar ak fukk ak benn mu tolloog kaafi mooy téeméer ak fukk ak benn kon alquran a ngoog kon ñu wéy ah bu ñu toppee borom xam-xam yi kese kon am na ñoo xam ne seen dégg dina jafeñ zalikal kitaabu boobale téere te mooy alquran mooy haazal kitaab di alquran bi laa déet ray ba sikk sàkka ray ba dengi dengi ray ba xel ñaar fii di nekk ci alquran laa bi mooy laa bi ñoo ci laa ilaha illallah laa bi laa ñaar la laa bi jëf ak laa bi dul jëf laa bi dul jëf waxuñu boobale waaye bii jëf la ñu wax laa bii jëf ñaar lañu bii jëf-jëfu laysa ak bii jëf-jëfu inna bii nag mooy jëf-jëfu inna isim ba ko topp dafay taqaloog moom muy benn nakira lay doon muy ñaar euh, déet muy ragal ca la jiitu euh, alim ca ñoom wala xam déet càggan yaasunuñu ciisu euh, baay bu baax doom ya la ñu nar a def ci gannaam walla sët ya yàlla du ko jàppee loola le ah bu baax lu bon la ya bàyyi ya defoon wala lu bon ya maam ya defoon yàlla du la ko jàppee ñu bàyyi xel ci loolu set bu baax sa maam ak sa baay lañ defoon sa yoon waaye maam bu baax set yu bon yi lañ def sa yoon am xas ngaa am yàlla xas ngaa am yàlla jeex na rek hmm. wala dina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi wa kazzabu ñu fenloo bi aatinaa suñuy aaya ulaayka ñooñu asxaabu naari ñoo di waay safara xum ñoom xaalidu na waaye béel lañu fiyaa ci safara soosale yàlla waxoon naag doomi aadama xitaab al am mu jóge foofale mu wax sosini doomi aadama hmm? mu jóge foofale mi ngi wax ci xeetu israil israil ila mooy yàlla jabrail mooy abdullahi wala jabrail ah aminullahi ki yàlla wóolu jabrail aminullahi moom la tubaab bi naan gabriel jabrail la ah mikail xéewalu yàlla gi yaani ni amatullaahi wala minnatullaahi ñu ngi dégg azrail mooy malakul mawt doole yàlla bi na moo gën a kàccoor malakul mawt moo buddi bakkanam seydina muhammad moo gën lu ci lu yàlla bindoon waaye malakul mawti moo ngëb bakkanam doo ko màggee ba du la jël doo ko yéese ba du la jël doo bari alal ba du la jël sa nguur du réy ba du la jël da ngay tëdd ci pale bi doo yëg garde rouge yaa ngi taxaw ci bunt bi mu daal di ngëb sa bakkan ñu ne faatu na démb yóbbu la hôpital médecin yëpp wër la mu ne poqet sa bakkan yóbbu ana piqûre ya ana appareil ya ah kon gi israil israil mooy abdullahi isra mooy abdu waxoon naa leen làkk dafay duggante wa in yaatikum usaara asir ki ñu ki ñu jàpp ku ñu jar-jare kon israil jaamu yàlla bi ana kan moo tuddoon israil mooy yonante yàlla yaqub alayhi salaam yaqub turam dëgg-dëgg mooy israil abdullahi waaye ne dafa doonoon caatu yaayam baayam moo doon isxaaqa maamam di ibrahim ñu dee ko yaqub ci seen làkk mooy caat waaye turam dëgg-dëgg mooy Israël ñii fi nekk tey jii nag falastin nangu suufi jàmbur ne ñoom ñooy bani Israël waxuñu dëgg de ñii ay sambaay booy lañ rek dañ leen dajale ñii jóge Amérique ñii jóge Europe Angleterre moo leen sos fi 1948 Angleterre moo leen andi fi fii ñu nekk tey ñu nangu suufi jàmbur yi waaye ñii du ñu sëtu yonte yàlla yaqub yi de déedéet du ñii sëtu yonte yàlla yaqub mënta mel nii nekk di tuur deret rek nit ku baax kenn du jóge ca moom di mel noonu la waxuma benn ak ñaar waaye mbooloo lëmm ay millions yi millions déedéet moo tax yàlla nee na yaa bani israil yéen xeetu israil uskuru na ngeen fàttale ko ni amati sama ni amati sama xéewal allati xéewal ba nga xam ne an amtu man yàlla xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa aw fu na ngeen jox na ngeen dikkee wa aw fu na ngeen jooxe wa aw fu na motal bi di sama kóllëre bu ko defee uufi man danaa motal bi ahdikum seen kóllëre wa iyaay man yàlla képp bu ngeen amee lu ngeen di ragal bu ngeen amee lu ngeen di eh, yeer gent bu ngeen amee lu ngeen di eh, tiite bu ngeen amee lu ngeen di tàppete farhabu ni na ma ragal man yàlla waa am na na gëm bi maa ci lëf la nga xam ne anzaltu wàccee naa ko ali musaddiqan muy aji dëggal li ma maakum ànd ak yéen nazaltu ak anzaltu du benn inna anzalnaahu ah anzala ak nazala du benn lu ñu wàccee benn yoon ak loo xam ne saa su nekk dañ cay wàcce dara dara nazala wàcce nañ ko dogit par dogit anzala wàcce nañ ko benn jóor dégg nañ wax bi moo tax yàlla ne inna anzalnaahu lépp dañ ko wàccee benn yoon ci guddaleetul qadar ci asamaan bu njëkk bi di baytul izz am nañu ne baytul izzati inna anzalnaa fi laylatul qadar lépp lu ko tàmbale alif alif laam lu ko tàmbale alha bismillah ba minal jinnati wan naasi benn guddi lañ ko wàccee ci laylatul qadar ci asamaan bu njëkk bi inna anzalnaahu waaye nazala nag dogit par dogit ba ñaar fukki at ak ñett yonent bi lii la def ci biir dund mu faatu ñeent fukki at la am yàlla yónni ko mu teg ci ñaar fukki at ak ñett mu soog a faatu nazala euh, benn par benn kon dégg nañu wax bi boo gisee téere yàlla jafeñ dafa ñëwoon benn yoon mu metti lool alquran benn par benn la wàcc wa aminu na ngeen gëm bi maa ca la nga xam ne anzaltu wàccee naa ko musaddiqan muy aji dëggal li maa maakum la nekk ak yéen wala takunu bu leen nekk awwala kaafirin di njël benn ñay weddi bi ci alquran gi wala tastaru bu leen wottee bu leen jënd bu leen échange bi aayati samay aaya samanan ak gànjaru àddina gi nga xam ne xalilam gu tuuti la ah mbokk yi war nañoo bàyyi xel fii rawatina sëriñ si ñu jox la benn kaat kaat rek ngay firi baatu yàlla nu mu la neexee walla ñu jox la benn kër ci HLM wala sikaab ngay firi baatu yàlla nu neexee buur wala yóbbu la yóbbu la umra nga ànd ak président ci avion wala yóbbu la nga aje màkka rek ah wala yëkkati ay chèque ci banque bi jox la yàlla ne na dërëmu àddina gi tuuti na de lii bu mu tax ngeen di jaay seen diina bés dana dikk mbubb yi da ngeen ko summi waaye da ngeen génn kër gi da ngeen génn dëkk bi danañ gas ba mu ko dugal leen ci bu ko ragee ka ngeen toppandu leen jëriñ dara wala tastaru bu leen jënd bu leen wattu bi aayati samay aaya sama nan ci njëgu àddina xalilan gu tuuti gi fa yaay man yàlla dong fartaqu ne na ngeen na ngeen ma ragal wala talbisu ah, bu leen bu leen bu leen jaxase ah labasa dafa am labisa am labusa am dafa mel ni boo ne sabt mooy bésu samedi boo ne sibt mooy dàll karbet boo ne subt mooy naaf naafu gerte ngaru dugub walla ngaru gerte walla naaf lii mooy subtu ah, làkk arab dafay wëlbateeku boo ne salaam mooy jàmm boo ne silaam mooy jombaraay mooy xeer yi nekk ci weti tël yi boo gisee nga fa ne dañ ko togg nii boo ne sulaam mooy loxo buy bul loxo boo xam ne diggante pël yi dafay génnee ndox boo nuyenteek borom mu mel ni dafa raxasoon fekk ndox kese loolu mooy sulaam salaam silaam sulaam labisa labasa labusa hmm? labisa sol na labasa jaxase na kon dégg ngeen wax bi na ngeen téye baatu alquran lool moo tax bu leen tëb rek ne damay fiiri alquran déedéet déedéet bu leen ko def wut daraja bu mu leen ci dugal mun na leen dugal ci fitna wala mu dugal leen ci balaa danga wax baat anam goo xam ne du anamam na ngeen ànd ak xel na ngeen ànd ak dal xam ne téere yàlla gi loo ci wax dañ ko dellu déggaat de yowma idin tuhaddisu ah axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha bés dana dikk lépp loo waxoon mu mel ni magnétophone bii ñu teg nii seen wax yépp danga ko déggaat yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi wala talbisu bu leen jaxase alxaqa dëgg bil baatili ci neen wa taktu mu ngeen di nëbb alxaqa dëgg wa antum te mbir ma yéen taalamu na xam ngeen di lii ngeen nekkee du lu jaadu wa aqimu na ngeen taxawal asalaata waxtu julli yi waaw nangeen saxal julli ànd ak jàpp gu sell te jàkkaarloog penku bi xanaa naafila booy tukki nag nga nekk ci oto wala nga nekk ci sa kaw fas yaa ngi jubloog Dakar mun ngaa naafila ci sa kaw daaba dara nekku ci de hmm? lii nag ngeen may ma ma leeral fi dara mooy suñu jafeñ ji nekk suñu diggante seetal démb la Arabie saoudite or Liban ci la woor Égypte ci la woor Koweït ci la woor Qatar ci la woor tey ñun ñu woor bu ñuy woor itam bu boo moytu noonu lay melaat kaaba gi ñaata kaaba moo am benn kaaba moo am ngeen bokk di julli benn waxtu bi fi élimaan jox gannaaw yow foofu nga jox kanam te sa julli wér na julli élimaan bi wér na am na ku nekk penku jàkkaarloog sow ndax fa la ko kaaba gi faree wér na am na ku nekk sow jàkkaarloog penku bi julleem wér na fa la kaaba gi nekk am na ku nekk bët saalum jàkkaarloog gànnaar di julli julleem wér na ndax ka ci kaaba gi la jublu am na ku jub am na ku nekk wàll gànnaar jàkkaarloog wàllu saalum mi ngi julli te julleem wér na te ñun ñëpp ñu ngi ci biir benn jàkka bi te mooy masjidul haram ana tee kii di tijaan kii di xaadir kii di saazali kii di xazali kii di xaatami kii di turabi kii di mirani kii di marsi kii di naqasabandi kii di badawi lu tee mënuñoo nawle wante ñun julli di te bu ñu demoon ci kaaba ki tey ñun ñëpp ñu ngi julli elimaan mi ngi jàkkaarloo nii ndax kaaba gi fa la ko fare yow yaa ngi jàkkaarloo nii ngir fii la la kaaba gi fare mbokk yi tey ñoo dellu ci diina yàlla gi bàyyi parparloo bi ak dogo bi ah kii maaliki la kii hanbali la kii ibaadu rahman la kii jamaatu falaax la kii laayeen la kii bayfal la kii tijaan la kii murid la kii qaadir la nañu jaamu yàlla rek parparloo bi dafa ñuy néewal doole ah wa aqimu sala na ngeen taxawal julli waatu zakaat ngeen joxe azaka ci nag ci xar ci béy ci gëléem waaye rab yi nekk ci àll bi duñ leen génne azaka ak loo ci yar ay njamala ay kooba déedéet xaalis gi dañ koy génne azaka war kaw na ngeen ne yogg ma araaki na ànd ak waaye yogg yi na ngeen rukku rukku yu dal na ngeen julli julli gu dal ni ngeen jaamu yàlla jaamu yàlla gu teey ata amuruna naasa moo ndax da ngeen di digal nit ñi bil birri ci lu baax wa tan saw na ngeen di fàtte anfusakum seen bopp di diggal doomi aadama na sangu te yow doo sangu lii de doy na waar wa antum te yen taal tatlu na yéen a ngi jàng alkitaaba téere bi afala taaqiluuna moo ndax de ndax du ngeen xeluwaay hmm? wasta inu na ngeen dimbale ko bi sabri ci muñ ku muñ da nga muuñ hmm? ida maaramaaka dahru yowman bi nukbatin fa awsi lahu sadra wa hayyi lahu sabra fa inna tasaarif al umuri ajibatun fa yowman tara usran wa yowman tara yusra bu la jamono nattoo na nga yaatal sa dënn nga gàttandoo ko muñ tey mu neex ëllëg mu naqadi tànk ndeyjoor ak tànk càmmoñ la foog ñu wutu wante waaye toujours na neex déedéet yonent yàlla muhammad sax sallallahu wa sallam yàlla mayu ko ko wa salaati ak julli boo gisee lu la jaaxal na nga jàpp ba set nga julli yàlla dina def li nga bëgg wa na naka moom julli day wa na naka nattu yàlla wa na naka ponk diina day la kabiratun lu rëy la lu jafeñ la lu ngand la illaa ndare alal xaasi na ci waay ragal yàlla yi ñu no duñ jël allahu nga sànni sa mbajjo nga jàpp jam jàkka ja mbokk li yombul de tisbaar daal di tàng nga daal di sol sa daal jëm ca jàkka ja tàkkusaan yaa ngi ci sa biro yaa ngi ci tool yi nga bàyyi ko jëm jàkka ja julli gee noonu inna la kabiratun illa ala xaashiin ana ñan ñooy xaashiin allazina mooy ña nga xam ne yazunuuna ñoom day jortu nañ danañu wéy di jortu gëm nañu danañu wéy di gëm nangu nañ danañu wéy di nangu annahum naka ñoom mu mulaaqu rabbihim yàgg-yàgg dañu dajeg seen boroom wa annahum naka ñoom raaji'uuna waaye del si lañu ili jëm ci moom yàlla yaa bani israil a yéen xeetu israil uskuru na ngeen fàttaleku ne amati sama xéewal allati xéewal ga nga xam ne ana amtu man xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa anni naka man yàlla day faddaltukum gënal naa leen alal alamina ci seen nitu jamono de dowl ne ñoo gën daa man ba abadan de seen nitu jamono wattaqu ah wattaqu na ngeen moytu ah wattaqu na moytu yow man bés bés a ngi dikkali bés goo xam ne sa bët a ngi xoole te gisatul sa nopp mi ngi ubbeeku te déggatul aa ah, sa lopp sa loxoy nee nañ yàcc sa tànk na yasar sa gémma sa gémmiñ mu ngi ni ŋàppeeku mën a toog ñepp mukk tey jeexal nga nekkatoo borom kër gi tey danga génn bokkatoo ci dëkk bi tey danga génn bokkatoo ci notable yi ah tey nga génn dëkk bi de waxtaku na ngeen moytu yow man bés googale bés boobale du doon umpuy benn doomi aadama ah, yàgg-yàgg danga nga dajeg moom kenn ku nekk ni ngay dee kii dana dafay fakkastalu gaañu gaañu googu ndox dugg ci ndox boobu néewiloo tànk bi dana dem ba tooge dugg ci ñu ne ko sa tànk yi baaxatul dañ koy dagg rek dee dikkee na ko kële mu wànnent ñu dem ne dañ koy opérer cataracte la bëtam daal di seey dugg ci biir tooke dugg ci mu daal di gumba jaar noonu ba dee benn yoon ñu yàlla teg leen feebaru choléra seen biir di daw seen gémmiñ di sotti ba ñu jaar foofu dee ñu yàlla teg leen tension ñu paralysé seen yaram dootu mën a yëngooti ba kara ñuy dee ñii fetal moo leen di rey ñii nag moo leen di mbëkk ñii ci géej la ñuy des ñii avion mooy lakk daanu ñu dee ñii oto moo leen di raatale ba ñu leen di for benn benn lii lépp suñu kumpa ana kan ci ñun la ana kan ci ñun la yow yàlla bés boo ñuy rey yàlla nag ñu rey suñu biir sutura yaa rabbi kon yàlla wa wattaqu na ngeen moytu yow man bés bés ba nga xam ne laa tajzi ah, du fay nafsun benn bakkan an nafsin ci bakkan shay'an dara yéen ñiy jàng arab ah yéen ñiy jàng arab na ngeen bàyyi seen xel fii su jigéen la ci làkk arab moo tax ñu ne laa tajzi ñu andi taa yaa ayatu nafsu yaa ayatuha al nafsu al mutmainnatu kon nafsu jigéen la lakk arab dafa mel ni tubaab tubaab am na lu ñu tuddee féminin ak masculin ah masculin mooy lu góor féminin mooy lu jigéen walla arab tamit dafa am lu ñu tuddee muzakkar ak mu annas muzakkar mooy lu ñu góoral mu annas mooy lu ñu jigéenal nafsu amul tegte lu jigéen waaye dañ ko jigéenal ah ci ndimbalu yàlla am na ko xam dina dugg aljana bi dugal ñaar am na ko xam ne dina dugg ba dugal fukk am na kuy dugg ba dugal téeméer am na kuy dugg ba dugal junni am na kuy dugg ba dugal million yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi boo demee ci raaya ba xaadimu rasul di sëñ Tuuba yàlla nañ yàlla taas ci barkam yaa rabbi moom sëñ Tuuba mi nga naan wa fii qaala nabi usmaanu yasfaru fii sabiina alfan wa kullun xaquhu naaru moom sëñ Tuubaa moo wax loola la nee na ci ràmm góogale wa fiihi qaala nabiyu ca ràmm góogale la yonent bi waxee ne Seydina Usmaan bun Affaan nekkoon di goroom di ñetteelu xalifaam dana ràmm juróom ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kullun kenn ku nekk ci ñooñu xàquwu buñ ko bàyyi woon ak boppam rek cëram mooy naaru safar dégg nañ kàddu gi kon ñi weddi ram ràmm luy am la de waaye ràmm gu munta am kii dund dundam yëpp sàngara si néegu jigéen yi jaay seen bopp di sàcc di fen xamul yàlla xamul yonante bi neri da nga ne kàcc ne gaa dugg leen pour coppare àddina gi mu la doon jox du musa am du musa am kon dégg nañ kàddu gi ok wala yuxasu deful jàpp min ca yowmal qiyaamati addun aw gam-gamle gam-gamle mooy jëlal kii bàyyi ma li ak lii ñoo tolloo jëlal li nga bàyyi ma lii mooy addun gam-gamle addlun idlun udlun waaw adlu dana firi maando idl yen yen lu yen gu diis comme sëfu mbaam sëf ah waaw mooy jeng udlu mooy jeng du benn a ah, dafa ah jol foo nisaani ada ah, faama insha allah taala walaahum du caagal ñoom yun saru na def leen dimbale wa fàttaleekul is najjay naakum is ba nga xam wa fàttaleekul is ba nga xamee ne najjay naakum musal nañ leen yéen fi yéen bani israil min aali firawna ci ñooñ firawna hmm? yasumunakum ñu bañ leen di togg sual aza mbugal mu metti ah yu sabbihuna di rendi ab naakum seen doom yu góor yi waaye sax yoon ñuy sàkkoo bàyyi mu dund ni saakum seen doom yu jigéen ñi ah wa fi zaalikum aji nekk la ci loolu balaa un mbugal balaa un ak nattu ah, ah azimun gu nganda nganda min rabbikum baw baw seen boroom bu góor ñi jeexee jigéen fan la ñuy juratee ah Firawna nag dañoo bari bari nañ de am nañu bind na ñetti téeméer lañu ak lu teg waaye am nañu bind ñeenti téeméer ak lu teg lañu waaye képp ku falu Égypte Firawna lañ lay wax dafa mel ni ci Kajoor ku fa falu Dammel lañ lay wax ah? ku falu Fuuta ñu tuddee la Almaami ku falu Waalo ñu tuddee la Barak ku falu Ndukkumaan du xam ngeen Ndukkumaan mooy sama fi la fala bawoo ku baax la yal yàlla fay ko ku falu ndukkumaan ñu ngi lay tuddee bëlëb waaw kon moo tax képp ku falu euh, Égypte Mesra ñu ngi lay tuddee Firawna loolu seen ndomboy tànk buur la waaye Firawna bi yàlla di tudd te mu daje woon nag Muusa ñu ngi koy tuddee tuut anji xaamuun tuut anji xaamuun am na ñu ñu tuddee Ramsis al awwal mooy Ramsis premier Ramsis deux am na ñu tuddee Shishànq ah Euh, ñi ñëpp am nañu euh, du dégg nañu am na ku ñu doon tuddee abu sambal moom lañu dagg ba di ko naan samba waaye fekk abu sambal la euh, tur bu yàgg la penku la jóge amul askan amul xeet bu du tudd du séeréer bi du pël bi du olof bi tur bi wàcc na ci askan yëpp dafa doon tur bu yàgg yàgg lool kon yàlla nee na wa fàttaleeku leen it farak naa ba ñu teqalee bikum ci yéen albahara géej ga fa anjay naa ko ñu musal leen ba ba Moussa ba ngeen ñëwee ba yegg ci géej ga Firawna seen gannaaw ah ngeen jaaxle lool géej gi suñu kanam noon gi suñu gannaaw ana nan la ñuy def yàlla ci la joxe ndigal Moussa ne ko dóoral sa yat ci géej gi ci la ubbee koo doon ay yoon ngeen jéggi fan jey naa ko ñu musal leen wa axar naa ñu labal ala Firawna ñooñ Firawna wa antum te mbir ma mi ngi nii yéen tanzuru na ngeen di xool di gis mbir mi gite ŋaas wa fàtleekul is jamono ja nga ne waa adnaa diggante woon woon nañu diggante woon nañu Muusa ah kii mooy njëlbeenu turam de ah Muusa turam dëgg-dëgg du Muusa turam dëgg-dëgg mi ngi tudd Waqayaa'il naka Israa'iil Ismaa'il ah Ismaa'il lu dégg nañ ko Israa'iil Waqayaa'il muy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett moo moo tax alquran li ci yàlla tudd Muusa tudd ko benn yonant dangay foog ne alquran gi xanaa Muusa boog Muusa moo tax mu jóg waaye Muhammad dafa doon mu kammil ci Muusa mu kammil dafa am mu tammim dafa am comme mi ngi bëgg a guddi danaa ko leeral feneen mu tammim am na mu kammil am na mu tam yéen ñi jàng géométrie wala hendasa triangle mooy ñett koñ boo dajalee koñam yëpp ñett koñ yi mi ngi doon téeméer ak juróom-ñett fukk koñam bu nekk juróom-benn fukk la zaawiya hadda zaawiya hadda boo boole ñett zaawiya yi muy téeméer ak juróom-ñett fukk zaawiya bële lu mu am rek li ci des dañ koy séddale ñaari zaawiya yi yenn yonent yi loolu la ñu tuddee mu tammim yenn yonent yi Muhammad mooy seen mu tammim ñenn yi mu doon seen mu kammil mu kammil jàng ngeen carré ah carré ñaata koñ lay am ñeent koñ benn koñ ñaari koñ ñetti koñ ñeent koñ koñ bu nekk ci angle ñu ngi ko tuddee right angle angle bu jub mooy azawiya al mustaqima wala ki azawiya al qaima astaghfirullah azawiya al qaima moom darajaam juróom-ñeent fukk la 90 boo boolee 90 ba muy ñeent muy ñaata 360 waaw yonent nee na utlubul elma wala bi Chine Chine cent 360 la Chine ñetti téeméer la yaaba di fukk nuum bi juróom fukk la fukk ak juróom fukk boo ko boolee juróom benn fukk Chine ñett Chine bu wow ba ñetti téeméer la muy ñaata 360 mooy tour du monde utlubul elma wala bi Chine kon dégg nañ ko kon carré ñeent angal la am loolu la ñu tuddee mu kammil yonent yàlla Muhammad dafa doonoon mu kammil ci yonent yàlla Moussa Moussa moo tax waqa yaa il la tudd waqa yaa il boo ko wàccee téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett boo ne Allahu Muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett waaye muusa bi dàkkantalam la ndax kees bañ ko dugaloon danañ ko fiir ca kanam géej gi daf koo jëñëx ba mu génn nekk diggante géej gi ak garab gi doomi firawna doomu yarluwaan ba mu ko jëlee rek yaramam daal di wow ci saasi te dafa amoon feebaru ràmm ñu ne ko lii foo fekkee kéemtaan gi mu ne baynal mu wasa diggante ndox mi ak garab gi waa googale mu mooy ndox mi ci seen làkk waa bi mooy li leen di tàppale saa bi mooy garab bay baynal mu wasa ñu ne muusa kon dégg nañ ko kon muusa lii mooy turam mi ngi mel ni israil ñu ne yaaqub mi ngi leer yéen a ngi dégg macha allah lu ngeen dégg di bu ma demee ci kër gi ngeen laaj ko jotaay bi àtte na ko damay daw léegi pour mu mën a jeexal benn isib bi ñu ñaante yeewee ko incha allah soreetul euh, yàlla nee na wa fàttaleekul is ba nga xamee ne waa adnaa euh, diggante nañu ah joxante nañu rendez-vous Moussa arbaina leelatan ñeen fukki ñeen fukki guddi yooyele ñetti fukki fan la woon Moussa daal sangu mu set socc sol ay malaan yu bees yàlla na ko Moussa wooraatal fukki fan man gémmeñu aji woor soof soof bi ciy génn moo ma dàqal la ko lañu misk nee nañ moo tax yàlla def ko ñeen fukki fan waaye bi Moussa demee di wuy ji yàlla balaa muy ñëw am na ku fa nekkoon ñu ko di Samiri moom mu jël seen takkaay ya tëgg ko mu mel ni mu mel ni aw séll nag ndeke moom dañ ko sànni woon ngir doowul doomu yoon yàlla doon yebal jibril muy ñëw ci moom di ko andi lekk jibril nag fu mu teg tànkam rek dafay daal di dund ah? Ah? lii kéemtaan la fu jibril teg rek dafa daay dund wallahi wallahi wallahi wallahi waaw dégg lañ naa ñaari ñaari nettali ci ñaari góor yàlla ñaar yëpp seen mbokk lañu benn bi mooy maa ngi jéggal lim ma jegañ lool muy maam Alpha euh, Samba di sama turandoo keneen ngi tamit nijaayu sama yaay la ñu maa ngi jéggalu waaw xam-xam moo tax ma la nit muy Cheikh Fanta Madi Haydara euh, ah Cheikh Fanta Madi Haydara ca Kankan gi réew Guinée dafa am ku ñëw daal leen tawat aajo fekk ndek ñu doon xéewlu ba ñu paree ndox mu ñu naan ko ne ko demal boo demee na nga ci naan sangu ji sa aajo dana faju fekk waa ji jox na leen addiye bu duuf waa ji génn ne dëgg-dëgg daal man euh, sëriñ si léegi doy nañu waar seetal lu bëri li ma ko jox bindul jox ma ma takk bindul jox ma ma naan jox ma ma suuru waaye ndox mi mu doon xéewloo desiti ndox moom la ma jox daal di mer rek jël bal jël butéel bi daal di dóor ci aw xeer ci saa si ñax daal di génn foofa la mu dellu ci sëriñ ba ne ko ah bii dafa toj na ne mu ne ko tojul da <laughs> koo toj lii moo tax lii la ñu tuddee al wirasa al muhammadiya al wirasa al muhammadiya nit yàlla dañuy am ay ndono ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi doxloo na ay garab sax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jëmbat na ma ci benn at googu tàndorma bi meññ dégg nañ ko wan bi maa ngi noonu la yàlla nee na waajoo suuf soosale ci la tibb denc moo tax ba Moussa demee di wuyu ji yàlla mu daal di jël seeni gànjar ba mu jëlee seen gànjar daal di ko daal di ko tëgg mu mel ni aw nag mu jël suuf su def ca nag ba commencé yëngut di nàññ di luur mu ne ah Moussa di yàlla bi mu seeti yoon ñoo na gannaawam ñu ànd ci di ko jaamu ah dégg ngeen mbir mi kon mbir maa ngi noona le kon mbir maa ngi noona le moo tax su ma taxas tum topp ngeen jàpp al ij la yëkk min baad yi gannaaw demu Muusaa ga wala ij la wëll ga wala sell ga wa antum te mbir ma yéen saali mu ne waaye tooñ ngeen su ma topp afoo naa la ñu jëllalee la ñu jéggale la ñu balee ankum ci yéen min baadi zaalik gannaaw loolu laallakum ngir naka yéen tashkuru ngeen sant yàlla euh, mën a mën a yegg ci moom wa fàttaleekul is ba nga xamee ne atey naa joxoon nañu Muusaa alkitaaba téere ba te mooy tawraata wal furqaana tegal ko ci lu teqale euh, dëgg ak fen lu baax ak lu bon Ah, lu yiw ak lu wéedi lii lépp la àllakum ah, bu boobaa yéen la àllakum ngir ga yéen la àllakum ngir yéen taxte doo ngi mën a ko wa fàttaleku leen is qaala is ba nga xamee ne qaala wax na Muusa li qawmi ñeel ay mbokkam yaa qawmi yéen sama mbokk innakum naka yéen den zalamtum tooñ ngeen anfusakum tooñ ngeen seen bopp bi tixaasukum jàpp gi ngeen jàppal ij la yëkk bi waaw fa tuubu tuub leen waaye ilaa baarikum jëm ci ki leen fent ki leen yi ummatu muhammad am nañu lu rëy de ah seetal xeet yooyu boo futteeku woon njaalo boo buggee sol mbubb mi doo ko mën a sol waaye seetal xeet gi danañu futteeku njaalo solaan mbubb ma dem balu ji yàlla xeet yooyu bu ñu xaajoon seen alal ñetti yoon sulus ba lu ñuy génne azaka ñun dañuy xaaj suñu alal fukki yoon benn eh, fukkeel ba ñu génne ko azaka ñoom bu sobe laaloon seen malaan buñ ko fóotee du set dañ koy kuppati sànni ko ñun buñ ko fóotee rek mu setaat seetal bànni Israël ba ñu tooñee yàlla yàlla ne duma leen jéggal mukk bu du ma wàccee lëndëm seen kaw ngeen bocc ci jaasi di gorante ba ma dindiwaat lëndëm boobale ñi dee jéggal naa leen ñi dee ñi dund jéggal naa leen waaye pour ngeen am njéggal foog ngeen def lii baay na ci rey doom doom rey ci baay waaye seetal ummatu Muhammad boo toogee astaghfirullah azim allazi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay yàlla far sa bakkaat fekk rëccu nga ko dootuma ko def bu démb doon tey duma ko def xam nga lii ngeen la ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñii yàlla ne foog ngeen reyante ma seglo na jéggal hmm? faqtulu na ngeen rey anfusakum seeni jëmm bopp zaalikum loolu day xayrun ah, moo gën a yiw lakum ñeel leen am na neneen ñu koy firee waaye firig baatin la danaa ci jaaraat ah, jotaay bi mayew ko ndax alquran ñaari moo ci nekk euh, tafsirun wa taawilun zahiruhu tafsirun wa baatinuhu taawilun dégg nañ ko euh, zaalikum seen loolu day xayrun moo yiw a yiw lakum ñeel leen ind baarakum faski leen fent di yàlla fakka leen bind di yàlla loolu lañ def de fa taaba aleykum yàlla nangu seen tuub innahu naka moom yàlla huwa moom kott attawaabu innahu luy mbir tey mbir huwa moom yàlla attawaabu mooy nangu waa koon tuub ba arahim mooy jéggalaa koon ba Moussa demee ñëw ne yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na alayhi salaam ñu ne ko Moussa duñ la gëmmuk bu dul yàlla gi ngi ñuy wax ñu gis ko ŋàmm ŋàmmaaral gite ŋaas moo tax jigu leen hmm? wa fatlakul is xultum ba ngeen ne yaa Moussa lan nu amana laka ñun dey duñ la gëmmuk lan lañ andi de duñ la musa gëmmuk ci liy dikk xataa narallaha ba ñu gis yàlla jaharatan gite ŋaas hmm? gis yàlla dana am de waaye du gisin bii de gisin bii nitu jamono foog léegi gis nga yàlla yow gënoo ragal yàlla gis nga yàlla bàyyi woo caaxaan xam xam nga yàlla yaa ngi wéy ci sa su dong yaa ngi fen yaa ngi e, karabaane mag ñu baax ñi dey xamuñu woon loolu le mag ñi buñ la tarbiya woon daal la tarbiya daal la tasfiya xent la daal la tarbiya yéege la dootoo ragal kenn ku dul yàlla too xam kenn ku dul yàlla doo wutati ci kenn ku yàlla subhaanahu wa waaye xam naa yàlla gis naa yàlla yaa ngi yore ay ndënd di dóor yaa ngi tëb di pàkkar ñi wallaahi summa wallaahi wa wallaahi daiman abadan ndënd bu bokkoon ci diina wallaahi suñu mag yu baax kenn du leen ëpp ndënd ah? kon ci waawoon dana fa bëri de ah? kon ña lew na gi dana fa bëri kon Medina Gunaas dana fa bëri kon Touba dana fa bari gan jël cee Fuuta ah kon dana fa bëri de waaye diina dana musu cee bokk de mbokk yi ma gën a leeral am na benn jigéen dafa ñëw fekk Seydina Muhammad demoon benn xare ba mu ñëwee ndaw sa benn jigéen andi ndënd te ndaw si ba ko yonte bi gisee ne ko ah fan la céet am ci céet rek la lislaam maye tëgg ak a fecc yonent ne ko céet fan la mu ne ko céet amul de mu ne ko sa ndënd gi nag mu ne ko damaa ñëw ngir tëgg ko fii sa kanam mu ne ko ah ndënd ba sama biir kër mu ne ko waaw ba ngay xare ji fa nga jëmoon dafa sori woon ñu bari dañoo téye woon doo ñib si fa ngay dee man nag ma daal nisar ne boo ñibbisee dara jotu la sama ndënd gi dinaa ko ba sa kër gi danaa ko laal fi lool yonent ne ko mënoo kafaara mu ne kafaara mu ne ko boo ko lebee doo am loo ko fay mu ne ko amul lu ma lekk waxatuma lu ma lebee di fay mu ne ko léegi nag loolu na mu mu ne xanaa nga muñal ma nga mu daal di laal tuuti ndaw si di laal ndënd ba di laal ndënd ga ñàkkatooy xepp mi ngay laal ndënd ga rek kenn déggatul waaye bi naa Omar ne asalaamaaleykum mbokk yi ndënd gi ndax ndaw si def ko koo wonn ndax def koo gas suul ndax def ko sànni ci ginnaaw kër gi daal ndënd daal feeñatul moom yonent daal di ne Omar yow de seytaane ragal na la mbedd boo soobu rek seytaane soobu beneen mbedd bu dul boobu du nangoo dajeg yow mukk kon lan mooy seytaane foofale du ndënd ba kon nañu dégg wax sabar yi ñuy tëgg naan ay ndënd nangam la ndënd amul ci loole la am na doomi aadama yuy dem bay naan euh, sëñ saañ bi dafay gaarawaale tabala dama ci téere bu ñu tuddee alxuniya Cheikh Abdul Qadir Jilani moom ci boppam moom moo araamal foofu loole la du dégg nañ demal nga nga seet téere boobal alxuniya li taalibi tariqil xaq moom ci bopp moom moo ko bind ci loxo boppam man araamulu ma daganam damay nettali rek kon yooyu bu ci bokkoon ma ni dinaa ko doon wudde waaye nag daf cee bokkul kon nañu ragal yàlla bu ñu siisu bu ñu lan lu baaxul kenn ku nekk yàgg sa bàmmeel kon mbir maa ngi noonale tabale yi ñuy tëgg gànnaar la jóge fi te naar bu jigéen moo ko doon tëgg ay da gis ay mbooloo naar ñu tiim benn benn këll rek di ci sotti ndox di dóor waaye ay góor takk seen ndigg bay jël ay ŋeñame yi ñuy def ci jëmbe di ko yëngal di pàkkar ñi kii ban diina la nit faatu ñu tëggal ko ay ndënd ana ban yool la ci am kon mbir maa ngi noonu yàlla yàlla dimbale ñu wa fàttaleku leen wala lu mu tëg wa fàttalekuli is qultum ba ngeen waxee yaa Muusa lan a laka duñu la gëm mukk xataa nara laa ba ñu gis yàlla jaaratan gite ŋaas fa axasatkum daal leen jàpp as-saa'iqatu ak xaacu ah, yàlla xajul ci mbindeef wa antum mbir ma yéen a ngi nii tanzuruna di xool yëgatu leen amatu leen ak dal amatu leen ak tekkaaral ngir baatu asamaan bi ngeen dëgg su ma topp ba as naakum ci lañ leen yebalee yàlla delloowaat leen seen sago maayal leen ak tal ak dal min baadi gannaaw seen yëgadi googale la allakum ngir nga yéen tashkuru ngeen mën a sant yàlla wa zalal naa karal nañu aleykum ci yéen euh, alxamaama hmm? mooy niir googu di niir ñetteel bi këriis googu di ñuul këris di lëndëm kunus euh, ñu doxale ko seen digganteeg jant bi ngir naaj yi naaji gànnaar gi bañ leen a sonnal lii lépp yàlla may na ko bani israil wa anzal naa wàccee nañu aleykum ci yéen al man na suuñ wa salwa ak kelew ba Moussa nekk ci àll ba amatuñ lu ñu lekk yàlla wàccee suuñ suuñ mooy lan mooy sungu fi tàndorma bu ñu mooñee lem mbokk yi lii neex na de kelew mooy lan bokkut ak kelew tew kelew moo gën a rëy cokkeer waaye yeggul ci ganaar ndawal gu neex la am lii lépp yàlla def ko doon defar asamaan muy wàcc ci ñoom suuñ ak kelaw yàlla ne kulu lekk leen min tayibaat ci waay teey maa razaqnaakum lañ leen wërsëgal wa maa zalamuna loolu la du ñun la ñu tooñ kin waaye kaanu nekkoon nañu yazlimuna di tooñ anfusahum seen bopp rek wa fàtt fàttaleekul is ba nga xam ne xul naa wax nañu udxulu dugg leen xaasil xarita bi la dëkk am nañu ne mooy ariha am nañu ne mooy jéricho ba ñu génnee misra doon ay juddi jéer ñu ngi jëm ci dëkk ba yàlla ne bu ngeen duggee fa kulu na ngeen lekk naa ci dëkk ba xaysu shiitum fu mu leen fi soob ragadan lépp ne tax na wadxulu na ngeen duggee albaaba bunt ba sujjadan ngeen di way sujuud ah, ngeen di way nugum wa qulu na ngeen hittatun yow yàlla yàlla na ñu seppil suñuy bàkkaar waaye ñoom day hintatun la ñu wax te hintatun mooy pepp yàlla ne na ngeen ne yàlla sippil ñu suñuy bàkkaar ñoom ñu ne hintatun yow yàlla yàlla na ñu bëri yàlla na nga bëril pepp lool xam nga waroon nañ ak li leen yàlla digaloon nax bu ko defee nax fir lakum nañ leen jéggal xatayaatikum seen ñaawteef yi wasa nazidu xel si nañoo dolli ne na waaye rafetali fa baddala daal di soppi ji allazina zalamu ñetooñ xawlan kàddu xayra lazi budul kàddu ba nga xam ne xiila lahum waxeef na leen ko fa anzalna ci la ñu wàccee ala lazina ca nga xam ne zalamu tooñ nañu rij san giraawaali mina sama jóge asamaan bi maa ngir la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaf su woon a doon ko di def ay jëfu kàccoor wala nar koo jëf ji ay jëf yu ñaaw bañ demee ci àll ga ba mar xamatul nan la ñuy def ñu ne yow Moussa ñun dey mar nañu yàlla ne Moussa jëlal sa jëlal sa yat gi nga dóor xeer gi ba mu dóoree xeer bi rek la ne paccax daal di def fukki bët ak ñaar bani Israël euh, seen lii mu sedd ya noonu lañ tolloon ah noonu lañ tolloon kenn ku nekk sa askan daal di jël benn bët ñu cay naan di ca sangu moo tax seetal yonte yàlla muhammad moo ëpp yonte yàlla Moussa kéemtaan Moussa yat la jël dóor doj bi ndox génn ah ndox yàgg naa génn ci doj ah waaye yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi ba ñuy xare ji tabuuk ñu dem benn ndox mi jeex takk amatuñ ndox tuuti lañu dese ci biir këll kuñ ko joxe nga ne man maruma joxal diw saxaaba yi ñoo baax dangay ngay mar ba bëgg dee ñu jox la ndox nga ne man maruma joxal diw ñu bëri dee nañ fekk mar moo leen rey ba këll ba yegg ci Seydina Muhammad kenn nanguwul naan yonte yàlla Muhammad dugal loxoom ci biir këll ga diggante baaraanam yi ndox mi naan car car car car ay junni junni doomu aadama ñëpp naan ba màndi nàndal seen jur jàpp ca sangu ca yonte jénne loxoom ndox mi daay taxawaat sallallahu alayhi wa sallam anakan moo mel nii ah mustaam amul dootul am mukk sallallahu alayhi wa sallam doj la dóoroon ndox génn Muhammad loxoom ci diggante baaraani fa la ndox génn wa fàttalekul is jamono ja nga xamee ne istasqa sàkkoon naa nandalu Moussa ñooñ muusa li xaw mi ci ay nitam Moussa sàkkoon nandalu li xaw mi ñeel ay nitam faqul naa ci lañ waxee idrib saddal dóoral bi asaaka yat sa sa yat gi dóor ko alhaja ci doj bi fan fajar daal di daal di ball minu ca doj ba na isnata ashara te ay nan fukki mbënn ak ak fukki bët ak ñaar xat dëgg-dëgg alima xam na kullu unaasin bépp nit mashrabum seen naanuwaay yàlla na kulu lekk leen washrabu ngeen naan min risqillaahi ci wërsërab yàlla gi wala taasaw bu leen di jaagar jaagari mufsidina ngeen di waay yàq fil ahli ci suuf si Alfayda FM rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. Alfayda FM. yàlla nee na am na ay doomi aadama yu jël ay téere di ko bind naan lii moo wàccoon ci yonante diw am na évangile bu ñu tuddee Luuk am na bu ñu tuddee bu Jean bu Matthieu bu Barnabas. lii lépp li yastaru ngir ñu wott li yastaru ngir ñu jënd li yastaru ngir ñu remplacer ñu amee bii ci loolale samanan njëg samanan gànjar saman kopparu àddina gi xalilan àddina gi nga xam ne lu tuuti kolentaan la fa waylun toskore lahum ñeel na leen bi mi ma euh, ca lëf la nga xam ne katabat bind na ko ay diim seen loxo ya euh, waylun toskore alkande mujj gu ñaaw lahum ñeel na leen mi ma yegg na ngir lañ doon fàggu de waxaalu ñu ngay naan ñoom yahudi ak ñoom nasaraani ak ña topp seen yoon lanta masana déet du ñu laal mukk annaaru safara annaaru safara safara du laal mukk bu ñu dee aljana la ñu jëm ñoom ñooy wax loolu de ñu ne illaa ndare illaa xanaa ay yaaman ay fan maadu datan yu ñu lim mooy fan yooyu ñu jaamoon seen estati boobale mbokk yi estati day ma dagganul ak estati bu munti doon ak ko munti tabax estati dafa araam ak ci réew mu munti nekk bu yeboo waa Arabie saoudite def ko bu yeboo waa Égypte def ko bu yeboo waa Koweït def ko bu yeboo université yi gën a mag ñu tabax ko lu araam bu ko ñëpp doon defit du tax mu dagan waaye lu dagan bu ko ñëpp bàyyi woon tamit du tax mu mu lew mook lu araam bu ko ñëpp doon def du lew waaye lu lew bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu araam ñoom yahudi ñoom ñooy naan seen yëkk boobu la ñu tabaxoon ci ay or doon ko jaamu fan yiñ ko doon jaamu fan yooyu dong la leen yàlla di pini ci safara waaye ku ci tuubul woon ba dee ca safara lay béel de sati baaxul yal na yàlla dimbaliñ yaa rabbi xul neel ataxastum ndax da ngeen jàpp indallaay fa yàlla ahdan aw aw aw aw kóllëre ndax da ngeen fasantek yàlla kóllëre ci lii ngeen wax déedéet yàlla de bu fasantek jaam kóllëre xanaa ci yow lay yàqu waaye du yàqu ci yàlla falan yuxlifallah yàlla day du wuute muk ahdahu dëxalam ba am taquluna moo ndax da ngeen di wax bokk alalaay ci yàlla maa loo xam ne laa taalamuna xamu leen ko balaa ahankay man képp koo xam ne kasaba fàggu na sayi atan lu ñaaw képp ku def lu bon di fen wala di karabaane walla di wor wala di wuruj wa ahaatat ba peeg bii ca moom xati atuhu njuumteem yooyu la ñaawteefam yooyu la ngay mooy yàlla doo tuub ngay mooy yàlla doo tuub yaa ngi fen yaa ngi wuruj yaa ngi wor yaa ngi naafeq fa ulaayka ñooñu day bàyyi leen asxaabu naari ñoo di waa safara xum ñooñu day xaalidoona waay beel lañu fiyaa ci safara soosu la yàlla nañ ci yàlla musal walladina ña nga xam ne amanu yàlla nag dafa bokk ci waxinam ci alquran bu waxalee jaam yi nga xam ne dañoo jubali mu daal di leen njatamal yëngal leen gësam leen ngir ñu dellu si mu wëlbate ko daal di jàkkaarloo jaam yu baax yi bëggal leen bànneexal leen ah daal di leen sigiriloo sigiri ci wolof mooy bànneex boo xam ne dem nga ba mun a too ko nëbbati moom mooy li olof mooy li arab naan tarab mooy sigiri ci wolof da nga bëgg ba mbégte ba munoo ko munoo ko nëbbati ku la gis xam ne da ngaa bëgg moo tax yàlla mu ngi bëggal julli di nee na wallazina ña nga xam ne amanu waaw gëm nañu yàlla xam ne yàlla mooy ki njëkk amul tàmbali ca cay te yàlla day mooy aji mujj amul jeextal ba faw daa iman abadan euh, maam yi njëkk fi lañ ko fekk set yi mujj fi lañ koy bàyyi mooy kaw mooy suuf mooy kanam mooy gannaaw mooy bët saalum mooy bëj gànnaar waaw yàlla nee na walladina amanu ñu gam yàlla góogale wa amalu saaleer ñuy def lu baax ulaayka ñoo ñële asxaabul jannati ñoo di waa aljana yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi ñoom day hum